envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant.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 Euh, murit yeeg taaliba yeeg képp koo xam ne jullit nga daanaka euh, doomati jàmm waaye nag ñu cité ci kenn ko xamante ni euh, day taalibe Serigne Fallou xam nu mu ko ci waxee Fallaaw bu sa càmmiñal càmmiñal jaxre ma fas yéene séq moom waxtaan parce tey wax dëgg yàlla dañ naan alhamdulilah parce tey lu bari war nañ ko waxtaanee ci jëmm ji waaye nag ku ne gis na aussi tamit barki dem vidéo yi nga xam ne def na ko ci ki nga xam ne mooy décès Aziz Dabala bi wane ni man Pikine laa dëkk wane a génn wax ci donte guy gi maa ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu bu baax a baax ak déplacement bi euh, di ñaanal ñëpp màggalu jàmm ak salaam di ñaan ñu ko fekke woon yàlla nañu ko fekke waat déwén ci darajey Alaaji Fàllu Mbàkke di ñaanal euh, sunu xalifa bu baax bi sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla bàyyi te mu fekk ay màggali màggal ci darajey Sëriñ Fàllu Mbàkke ñu ngi kontaan ci màggal gi bu baax a baax ak teewaay bi. Mm-hmm. maam chaque année euh, dañ koy waxtaanee euh, fi may njëkkee mooy euh, sa digganteeg màggal gi. Mm-hmm. dañuy gis maam bu màggal dooree daanaka lépp lu mu am rawatina màggal gi man màggal gi dama ne maam est-ce miraasul boppam sa digganteeg sëriñ bi lan la. waa ñun dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi comme li ma la waxoon rek moom laa lay waxaat man sam papa taalibe seex la. mais ay murit ñoo ma yar ba ma toll nii lu ma am tey à cause de ñoom la ni ma mel ñoom ñoo ko def ci man ba tax na bu màggal jotee lépp loo xam ne am naa ko ak lépp loo xam ne yor naa ko daf ma koy jaral parce que taalibe Alaaji Fàllu laa ba pare murit sadix laa kon màggal bu jotee mooy suñu événement amuñu lenn loo xam ni dañ koy daw ci màggal bu ñu dee teg jeexal dañuy teg jeexal bu ñu dee teg bu ñu paree yokk dañuy bokk ci milliardaire Serigne Fallou yi ndaxte ñun màggal rek moo ñu ñor. d'accord euh, ñu gis màggal bu jotee maam euh, day mel ni euh, gaynde gu fépp lépp loo xam ne am na ko danaan dama koy def ci màggal gi ñenn ñu bari naan est-ce que nekkul maam day puuk réew ci màggal gi parce que sa vidéo yi nga xam ne gis nañ ko mu dugg mooy or yi macha allah valeur 10 millions ñii naan est-ce nekkul maam dafa dem pour màggali wala maam day dem pour wane wu naka ngay lan ngay tontu ci loolu. guy gi kuy dund def yëfi ñu xam ni dee nga parce que lenn naa la ko xamal doo def màggal màggal gi jot nga invité ay nit di leen berneel du sol sërëg ti set ndax tubaarikal la boo ñëwee ci màggal dangay def yëpp yi màggal di def li fi sëñ bi santaane mooy ñu berneel gan yi jox leen ñu lekk jox leen ñu naan sol yére yu baax téere ko màggal gi ndax màggal gi taaru mais Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne dafa metti tellement ko loo fi def ñu ne li mu def waru ko def mais yow da ngay gëm li nga gëm xam li nga xam boole patt ak organiser l'essentiel daal loo mënti def ci àdduna na nekk sa biir xol. te ñun yaakaar naa ni murit moo nekk sunu biir xol saddeex te lu ñuy def lu ne ak xol lañ koy defee. ak xol lañ koy defee. ñu gis sag màggal dañu gis innovation. rawatina màggalu ren parce que wax dëgg yàlla damay wax ku ñëw ci daara ji tabarkalla macha allah traiteur yaa ngi traiteur yaa ngi teg. lan moo la motivé tey nga jënd daara motivé la nga bàyyi ci ñëpp dugal ci seen waa kër rawatina say mbokk parce que wax dëgg yàlla tey fépp la ñu climatisé ah, man. waa guy gi euh, man duma fen te dama jom ma fen duma wax loo xam ne du dëgg Touba am naa fi kër dañ koy tabax dama ko profité pour màggal gi mu pare en face la soriwul fii ñu fiy jaabante chaque jour kër gi mënul fexe ba pare parce que mënuñu ko profité ci màggal gi def naa le tout pour mu pale ki may ki may jëndal fii te muy tabaxal may tabax fii moom moo ne ma bul yàqamti sama kër pare na comme ñoo jàkkaarloo kaay ma jox la fii nga sanc ko defar ko bu ñu màggalee ba pare nga eggali sa kër déwén nga dugg ci ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax man dama nekk nit koo xam ni comme dama koy wax chaque jour lu ma sama bët bi may sama fit bi du ma ko xañ ba pare dafa am lenn loo xam ni dama bëgg nit ñi xam ko chaque jour dama koy wax te daw ci dara muy dama judd ci famille boo xam ne amuñu dara mu judd fekk fa ngor ak personnalité muy sama famille baay di sama famille papa mu sama famille yaay mu nekkoon famille bu tasaaroo woon nag parce que réew mi boo amul kenn du la respecté man boo bokk naa ci ñi motiver sama famille dajale leen ñoom ñëpp ba ñu assemblé waat ndax bu màggal jotaan dañ daan toltolaan fu nañu daw fa di leen di fa dem di fa dali kii bu dalee fii kii dal fii kii dal fii kii dal fii tey ñëpp tëdd tey man ma reyante sama bopp ba jënd sama kër Touba tabax waaye yàlla dogal kenn mënu ci dara. Mm-hmm. ndax def naa la tour ñaari sànce laa yor bu pikin ak fii damay jàmbaar loolu samp ñaar yëpp di ci def nag lu ma am. meuble yi nga fi gis yëpp conteneur la jóge bërki démb la conteneur bi wàcc te kër gi moo kër gi kër gi moo ko taxoon a jóg. Mm-hmm. waaye man dama nekk doom joo xam ni damay seet sama mbégte yaay ma di ko def. Mm-hmm. sama yaay dama ko daan gis muy màggal danaan sonn tol tolaan amul fu mu dal fu mu dal ni mu war a aisé woo du ko aisé woo waaye tey ku dugg fii xam ni sama yaay aisé wu damaa clim ba clim saali mm-hmm. digg kër gi sax boo ko xoolee clim ah, bi day seet mm-hmm. néeg boo dugg dama ciy rëq nuñ koy waxatee euh, kii dama ko dama cee def euh, chambre à coucher mm-hmm. kër gi amul lu fi nekk loo xam ne dafa jóge ci kër dugg ci kër lu nekk lu bees la parce que sama kër sama kër ñoom ñaar soreewuñu te bu paree li fi nekk lañuy jël yóbbu yóbbuwaat ko foofu kon nag bu xale yi di wax lu ñu mënut heure bu ma xëyee di def lu ñu mënut booy xool yokkute gi parce que da nga daan ñëw di paas premier jour màggal sa premier màggal nga daan dugg ci njaganjaay gàddu xale yi euh, tey yàlla sunu borom di la dimbali ba booy ñëw benn oto ñaari oto ñetti oto ñeenti oto juróomi oto macha allah nga indi ay teraanga dem ba tey màggal lépp loo xam ne dafay ñëw nga ci def ay millions di ko génne ki sa ñàkk innovation boobu maanaam yokkute googu noonu sëriñ bi defal hmm. yokkute googu sëriñ bi defal la. ma guy gi nit ki looy def rek nanga ko gëm. Hmm. nit ki looy def ci àddina na ko gëm man dama gëm sama bopp tellement que du bari fans du bari ñu ma bëgg. parce que Sénégal naa fekk ñoo fee ëpp. Mm-hmm. ak ñoo xam ni dañuy bëgg ku topp seen ginnaaw. Mm-hmm. te man na gaynde laa tubaarikaal la. Mm-hmm. moo tax bëgg ma du yomb. bëgg ma day jafe. parce que chaque jour bu yàlla sàq rek damay seet ki nekk ci kaw koo koy sama idole damay bëgg li nit am ma am ko waaye dama koy am nag ci kaw ngor. ak fulla ak fayda ak personnalité. ak jaamu yàlla sunu borom. man sama alal guy gi. Mhm. mën na tabax jàq mën na tabax jumaa barki Seydina Muhammad mhm. li ma waxoon sam papa moom laay waxaat. Mhm. moo ne ko boo demee bayti laa loo fa ñaan mu nangu. sama alal man maam Ndiaye savon mën na tabax jumaa mën na tabax jàkka. donte nee nañu xeesal bi may jaay baaxul mais maa ko ñaq liggéey ko. sama alal amul daray luubal. moo tax nag bu màggal jotee. xaalis bu baax ba ma cay def moo tax chaque année day yokk màggalu sëriñ Fallou la may fere kenn xamul nu mu toll tey màggal gi li ma fi fere kenn xamul nu mu toll mhm. su may def duma xool su may jëf duma xool man sëriñ tuubaa rek a ma ñor ak waa këram boo toogee Touba nga xalaat démb xalaat tey dëkk bi nga nekk guy gi yaa ngi laaj lu garaaw mhm. Touba dund naa fi lu méttee méttee méttee méttee méttee yàlla suñu borom. Mm. moo tax ku muñ muñ. dëgg la. ku muñ da ngay muñ. Mm-hmm. tey ñëpp a bëgg ma dal seen kër. Mm-hmm. te moonte bu njëkk ba kenn daanul bëgg nga dal sa kër. parce mm-hmm. que Serigne Fallou Mbacke. da daan dem ci kër ñu di la sewal. mais man bi ma demee ba xàmme ba commencé dëgër. yàlla boole woon na maag ku baax ku may dal këram muy àllaaji maa ngi koy nuyu la à su ma ñëwee néeg la ma daan jox moom ak ay jabaram ma nekk fa ci jàmm ak salaam mais senegal moo nekk réew moo xam ne bu la yàlla teralul dañ lay xeeb te ñi dëkk tuubaa duñ ko def ñiy wàll siyaan ñëw di dal si ñoom ñoo d'accord ay ci am na solo donc fi may jeexalee ci màggal gi bala maa ñëw ci li nga xam ne moo xew Pikine euh, lan la ñu mën a xaar ci màggal gi parce que wax dëgg yàlla fi ma gis moom maam ah <laughs> xam naa ni. <laughs> guy gi màggal gi moom li nga mën a gis lenn ndong la muy berneel gan yi ñu lekk ba suur. Mhm. surtout loolu. waaw man balaa maa sol sagar bii dama defar kër gi berneel gan yi te lu nekk fi am nag. lu boroom daraja rek di am ci biir tuubaa këram day am sama kër gi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mhm. traiteurs yi dinañ ñëw bu dee nag dinañ ko rey lu yoo xam ne rek dañ ko war a rey ci màggal ci subaa ci kàttanu yàlla ma daaneel ko. te bu boobaa séentuwuma ci fay doomu aadama te du puukare moo tax ñu di ko def ndax nun sëriñ tuubaa rek la yaakaar ale ak retour. te Serigne Touba moo jur Alaaji Fàllu Mbàkke Fàllu aw bu sa jëx réew ma caamiñal ma reem bàyyi Serigne Abdou Karim te man moom rek laa yaakaar te tey lu ma mënti mel ci àddina ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sama ñaanu waajur Serigne Fàllu joué na ci ndax su ma jaaxlee moom laay woo mhm. te heure bu ma ko woowee gis ci yokkute mhm. man bi ma àndeek sëñ Fàllu ba tey awma tànki ginnaaw mhm. bi ma yaakaaree sëriñ Fàllu ba tey awma may baas am na ñu ma rombaan di ree ba may joxe kafe ga ak mbur saaku mburu ba am na ñu ma romboon di ree waaye tey du ñu ree mhm. ndax sëñ fàll ku ko ku ko ku ko wisal mu tawal la bol nga lóor te fi ne damaa lóoral mhm. te damay ñaan rek mu yokk xam nga lu may jooy gudd fan ak wér gu yaram bu ko yàlla defee milliardaire u Alaaji Fàllu yi dama ciy bokk Tuubaa gi kër yi day gën a yokk lépp laa fi am d' accord ay jàmm na solo xam naa damay pause foofu ci màggal gi yi ci des li nuyoo la rek. Mhm. li ci des ci kàttanu sunu borom suba. Euh, euh, nañ ko xaar fii ci people 221 maam euh, li xew pikin mu doon loo xam ne nii wax dëgg yàlla lu ñëpp ñaawlu la muy Aziz Dabala di doomu senegal rawatina di doomu pikin bi nga yëgatee bi nga yëgee mbir mi ban jàngat nga ci am. guy gi man Pikine laa dëkk. Mhm. falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee. Aziz Dabala xam naa ko mais xamante nii bu baax xamantewuñu wuñu mu suñu fréquenté mais comme Pikine laa dëkk mu dëkk pikin bi ma yëgee décès bi am naa lu ma nakkari tellement que nelawuma parce que am na yenn yoo xam ne bu ko nit sañee ragal koo def mhm. ndax xale la te mu ngi nekkoon ci yoonam te mi ngi doon liggéey sànq dama dugg sama commentaire yi dégg ñu naan maam Ndiaye di bind bind yu gudd ma nit ñi di ma ko liira talluñu la dëj bi lañu tal dëj bi ñun ñii noonu lañu mettee waaye lu mënta ñàkk faw mu am Aziz dem na ba pare xam nga lu mu soxla ñaan te barke Seydina Muhammad laa la giñal balaa maa départ Touba bu dee julliwuma ci fajar gi ñaanal Aziz da balaa yàlla bu ma ñibbi yàlla bu ma rawee benn fan mbir mi xol la ak yéene. nanu bàyyi commentaire yu ñaaw yi ak wax lu ñaaw kii dem dem na ba pare xam nga lan la soxla. ñaan ndax ñu jooy mbaa ñu manifesté wu ba mu ñëwaat ñaan la soxla. li ci xol yi ñun ñoo ko xam mm-hmm. naqar bi ñuy dund ñun ñoo ko xam li ñu jooy ñun ñoo ko xam dañoo manewul nag li nit ñi man waaye ñun lu ñu naqari ñun ñoo ko xam bu doon Aziz Dabala tey lu ñu yàlla wërsëgalee bakkan mam al xaalis moo koy indi ñu jël as néew lañu am def ko ci pour mu ñëwaat. ndax ñu xool ndeyam jee toog. Mhm. te ndeyam jooju jariñoon na ko. sànq dama solo ba pare toog fii gis magam di yuuxu biñ koy jullee. sama rongo ñi dadoon doon këpp. donte maa ngi solu ci màggal gi ndax lu mënta ñàkk faw mu am. Mhm. lu mënta ñàkk faw mu am. te kulli naftin saay xatil mawti bakkan bu ñam dund dina ñam dee ñun xam nga lan la ñuy ñaan gudd fan ak wérgu yaram waaye ñun dañ koy fekk ji mhm. waaye yàlla na rafet ñun li suñu xol ñun ñoo ko xam mhm. ndax ñun Pikine lañu dëkk mhm. mais de Dabala dañ ko ñaanal te wax ji dafa bari te toro nit bu deewee version bu ne ngay dégg ñuy tuumaal ku ne góor yépp ñu tuumaal leen nañu bàyyi justice su Sénégal def liggéeyam. te ñu ñaanal ko. Mhm. fi mu jugee fa mu jëm dàq ko. Mhm. yàlla xaree ko àjjanay fil daw si ñu bàyyi wax ji. Mhm. ak ñi koy taf di ko directal vingt quatre heures. wallaahi nekkoon na fi nekk ci ay problème est-ce que mës nañ ko directal. Sénégal boo nekkee tey tolof tolof wala dara dal la rek la ñuy profité pour bëgg buzz. nañu bàyyi buzz yi. nañ ko ñaanal ndeyam ji sonn na ak ay mbokkam ndax taf giñ koy taf di wax ci moom. Mhm. ku ne di wax wax ju ñaaw. Aziz dañ ko dëbb ak Aziz dañ ko def nii ak Aziz même buñ ko defee nañ ko war mhm. nit dañ koy warmaal. Mhm. nañ ko warmaal. ah d'accord nañ ko warmaal am na solo eh, mais ñi def ñaawteef bii nii. ban message nga leen di lancer parce que des fois nga gis benn xale boo xam ne day nekk ci kër yor ndeyam yor baayam yor njabootam euh, boo ko reyee jàpp nga ni moom nga rey waaye yóbbaale nga famille ba yëpp. Euh, man moom ñooñu awma leen lu ma leen di lancer di ñaan yàlla rek yàlla na leen yàlla niit. Mhm. ak Alaaji Fàllu Mbàkke ak borom màggal gi balaa bis bee dellu si yàlla na leen yàlla niit. amiin ndax danoo tas yaakaaru ndeyam. Mhm. te xamuñu lan la doon servi ci seen famille. Mhm. yàlla na yàlla nit lépp. Mhm. te yàlla may ndeyam xolub muñ may ay mboqam xolub muñ metti na nag. Mhm. waaye nañu muñ yàlla dafa ànd ak kuy muñ. ndax ku muñ muñ. te yàlla lu mu jël ci loxo lam ca bàyyee ëpp. donte metti na mais nañu muñ. ndax yàlla dafa ànd ak kuy muñ. d'accord dëgg la yàlla dafa ànd ak kuy muñ donc maa ngi lay jaajëf lii nag nuyoo la rek dañ na nuyoo rek. Euh, li ci des xam naa incha allah suba moom damay bañ a wax gaa yi ni waaw mais nañ xaar suba daal spécial màggal. Mm. comme ni ñu koy defee chaque at. incha allah amul rumbaay. Mm-hmm. amul mumbaay. Mm-hmm. jàng xasida. Mm-hmm. jàng alxuraan jaamu yàlla lekk ba suur. sañse sañse yi. continuer sunu cant. jeex na tàkk maam looy tàggatoo. waa di sant yàlla bu baax a baax di jullu ci yonent bi di santal borom di sant borom màggal gi ndax sëñ Touba moom amul moroom kenn la. ndax euh, am na ñoo xam ne ñu ngi naan murid dañoo bari màggal chaque jour màggal waaye ki leen tontu da leen a tontu tontu bu neex sëñ mbaam baa bari ndam moo tax màggal yi bari ñu sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi euh, di ñaanal sëriñ Abdou Karim Mbacke yàlla na ko fi yàlla bàyyi dama fekke ko ay ati ati at sëñ Muntaxa Mbacke yàlla na ko fi yàlla bàyyi te mu fekke ko ay ati ati at yàlla ñu yàlla may gudd fan ñun ñëpp ba ñu fekke ko waa déwén di wax yàlla bu kenn manqué lu waay ñëw di ko wut ci màggal gi yàlla nga ko am lu fi waay fere it balaa déwén yàlla nga doon milliardaire u Alaaji Fàllu Mbàkke man maa ko ñaan man maam Njaay Savon ci barki Sëriñ Fàllu Mbàkke ñu xaar nag ba suba ñu berneel gan yi lu lu war lépp ñu def ko ci kattanu yàlla ak mbaaxam inshallah kontaan naa guy Aïcha mu ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje suba ak jàmm inshallah rabbi jërë ngeen jëf